asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu ñoo leen di jaar bu baax leen nuyu leen ndokkeel tey nag ñu amoon mbégte pour ñëw fii leeral tuuti ci liggéeyu Muqaddamatul Xidma bi nga xamante ni ñooy saytu jumaa ji bokk na ci ñun nga xam ne ñoo féete ci wàllu organisation lépp loo xamante ni mooy xayal jumaa ji ñu yor ko di ko toppatoo tey nag ñu doon leen leeralal tuuti ci machine bi nga xamante ne ni moom mooy euh, fóot tàpp yi waaw ñu ñu xëyoon gi nag def ci bu nekk machine boo xamante nii ni machine bu am solo la ci euh, liggéeyu Moukhaddamatoul ma ndaxte tàpp yëpp bépp boo xamante ne ni am na jeexit ju si nekk rek ci machine boobu lañ koy dugal moom moo koy setal ba mu mel na mu war mel waaw léegi nag ñu bëggoon leen cee leeral tuuti ci dayoog machine bi ak euh, jëmmi machine bi li muy liggéey ndax machine bi am na solo wàllu machine bi moom mooy fóot tàpp yi moom moo koy fëgg moom moo koy wowal waaw mu nekk nag ay ñetti pàcc la loo xamante ne machine bi ci loolu lay liggéey machine bi su fekkante ne moquette bi ñoo na si machine bi machine bi moquette bi buñ xoolee bu fekkente ne dafa nekk tapis boo xamante ni dafa bëri poussière bëri suuf dafa am foo xam ne bu lañ koy dugal machine boobu moo koy njëkk a jël fëgg ko bu ko fëggee aspiré ko ba nga xamante ni suuf seeg poussière bi yëpp dañ na ñu soog ko dugal ci machine bi kay laver machine bi koy fóot machine boobu bu ko fóotee ba mu set wecc ñu soog ko dugal ci beneen machine boo xamante nii moom moo koy wowal moo koy nal ba nga xamante ni dina fend ba wow koŋ daanaka mën nga see toog waaye du tee dañ koy weer tuuti ci naaj yi pour mu xaw a fenn ndaxte bi génn day am chaleur bu muy génn bu tàng. waaw dañu dañu see tàggat defal ñu si ñu nekk ci ay ñu former ñu ci bañ mën a nekk ñun ay formateurs nga xamante nii que ni tubaab bi bi mu ñëwee bi ñu former ñun daf ne machine bi Afrique gi yëpp benn la fi. waaw léegi yéen da leen di former pour ngeen nga xamante ni bu ko fi amaatoon da ngeen ko mën a former waaw loolu moom moo tax ñun formation boobu ci lañ génne ndaxte dañ bi ñu former dañoo former jàngal ñu machine bi yëpp ba nga xamante ni ñu koy utiliser ni ñu koy liggéey yëpp ba ñu xam ko ba nga xamante ni daanaka ñun tey ku si ñëw sax man laa former ba nga mën a liggéey ci machine bi. waaw entretien bi maam ni dañoo am genre entreprise boo xamante ne nii. lépp loo xamante ni que ne jëm na ci wàllu entretien machine bi moom moom moo ci nekk ñun forme nañ ñu ci am na ci ay bu dee ay paan yu ndaw yu mel noonu ma nañ koo régler suñu bopp mais am na fam ne bu fa tollee il faut que ñu yóbbu ko sa entreprise bi foofu moom moo ñu ñu ñoom ñoom ñoo koy regle defar yi si war a nekk ndaxte machine bi dafa bëri loo xamante ni daanaka day dox si ordinateur. waaw ah, moquette yi mi ngi aajo woon nag ci machine bi buy fóot moquette bi. ci dayoob moquette bi tilimaay bi ak taqaayam am na machine yoo xamante ni du bëri poussière du bëri suuf si si si si si si tàpp yi tàpp boobu dangay ñëw rek du jar fëgg parce que du bëri suuf day tilim nii rek lu mel ni ay jeexital nekk ci wala yu mel noonu amul suuf yooyu da ngay ñëw rek fóot ko direct bokkul ak bi nga xamante ni dafa am suuf nit ñi di si jaar di si jaar ba mu pënd ba tibb suuf lu bëree bëree bëri boobu bu fekkante ne tàpp yi daf see bëri nga mën a dina bëri mais bu yi nga xamante ni que ne jaaj ajowul fëgg du jaar ci ma ñetti machines yëpp mën ngaa xëy nga fóot ci loo xamante ni dafay bëri ndaxte boo xoolee fi mu ne nii suba ba ngoon jot si tàpp yi mën nga cee fóot bëri na mën ngaa fóot ba ñeent fukki tàpp yi wala juróom fukki tàpp yi ci benn bis bi. waaw ndaxte tàpp bi machine bi dafa am dimension boo xamante ni moom la mën a jël si tàpp bi bu dee comme morceau yu ndaw yi da ciy tegale par ñaar di ko fóot. léegi nag boobu boo ko boolee yëpp dafay nekk ay 3 mètres wala 3 mètres yu teg tuuti te tàpp yële boo ko xoolee day ëpp 3 mètres dafa dem ba ay 4 mètres 4 mètres 50 te loolu lu xac ci machine bi loolu moom mooy waral tàpp yooyu bu demee noonu duñ koy mën a teg ci suuf rek fóot ko noonu brosse ko même sax am nañ machine boo xamante ni moom mooy fekk ko foofu di ko fóot waaye ba tey it teewul brosse bi moom mooy kii daal yooyu daal dafa ëpp machine ba waaw daa xaw rëy ci machine ba. loolu moom moo tax que ñu koy lal noonu di ko fóot mais yi nga xamante ni yëpp xaj na ci machine bi moom ci machine bi lañ koy fóote xanaa di sant rek tey gërëm di wax ne euh, lii moom nekk na loo xamante ni lu am solo la ci euh, liggéey bi ci Moukhaddamatoul Khidma ndaxte depuis ñu commencé ci machine bi ba nëgë ni lépp loo xamante ni que ne ñu ngi ko ci ñu ngi mi ngi laaj entretien bi mi ngi koy laaj mu xaddama sax mi ngi ko si def parce que mosumaa ñëw ba wax leen na leen machine bi nangam ki nangam ñu wax ci dara kon seen taxawaay wax dëgg yàllaam am na solo ci liggéey bi loolu maa ngi leen ci sant leen gërëm.